bismillahi arrahmani rahim ñëwee ci njàngalem Serigne Touba ci ñetti téeméeri ak juróom fukk Serigne Moussa Ka radiallahu taala anhu daana bëgg Serigne Touba xaada lahoo law maxtaar lahoo ràññee ko ba benn bi ñuy liggéey Serigne bi ràññee ko lool ni ko Moussa dikk nga mu daanu jël Serigne bi fab loxoom teg ko ca dënn ba mu daal di xiqi loola bàyyi na jeexit ju màgg ci moom siiw na sëriñ Tuubaa xaadala wala maxtaar loxo bi muy jox sëriñ Muusaa Ka soxna bu Saw radiallahu taala anhuma dañu ko seen ñaari waajur yee jugee barsàq ni ma ma boole leen ma def ko siiw na sëriñ Muusaa Ka radiallahu taala anhu sëriñ Tuubaa xaadala wala maxtaar loxo mas na ko woo mu ñëw mu ne ko nit mi ngi nii ndigal yàlla yi nekk ci wetu ndeyjooram tere yàlla nekk ci wetu càmmooyam mayi yàlla nekk ci kanamam li muy bañ nekk ci ginnaawam saa su topp ndigal sunu boroom jox ko li mu bëgg saa su dee daw tere yi du gis li mu bañ loolu moo di maanaam wax ji teewul li ma gis ci xarab bi mu ngi nii inni jalasu fii bayti fii njaareem ودعاني شيخ القديم خالد لو مختار له فلما سلمت عليه قال لي يا موسى اني اعلمك بان الله خلق الانسان وامره بما في هذه الخاتمه ونهاه هما في هذه فمثاله هكذا ني لاكو ديفه موي ردوي ني نكو واني واني ني خمنا كي خول ايماج بي دانا كو مانا غيس بو باخا باخ نون نون لاكو ديفه نون نكو ليوي نون كي ديغلو موم دوكو نيه خوان خاتم لا مو بين لي كي بير ني haasa xalqullahi daal koy wërale ndigal yooyu xalaxal insaana wa mawaahibu fi lmashriq su mawaahibu naas maa awamirillahi kulliha man daama fi awamirillahi ataahu lahu mawaahiba naasi kulla dunya wa oxra fi jihati lmashriq loola def ci penku bi fa in faxala insaana awamirallahi kullaha ataahu lahu mawaahiba naasi dunya wa oxra loola def ci wetu ndeyjoor bi mu def ci sowu bi manaahiya lahu kullaha fa in faxal insaanu manaahiya wal makaariha atahu llahu bi jàmmi mafasidi wal makaarih kulliha dunya wa axirati loolu def ci soow bi wetu càmmoñ gi mu def ci fa in faxal al insaanu al manaahiya wal makaariha atahu llahu jàmmi al mafasid kulliha dunya wa axiratan noonu daal la ko andee ci noonu ñu ko binde woon ci arab ñu ñëw ci njàngalem Serigne Touba ci ñetti téeméer beeg juróom fukk ak ñett Serigne Touba xaada lahoo laaw maxtaar lahoo nee na bu ngeen xëyee na ngeen jiital jaamu yàlla teg ca liggéey def coono muy seen noflaay def naqar muy seen banneex wettalikoo yàlla te benn te bañ a wettalikoo jëmm def ndigal yàlla muy ab sëriñ te bañ a def aw sant muy ab sëriñ wér na sëriñ Tuubaa xaadalawoo law maxtaar lawoo nee na bu leen bokk ci ñuy fanaanee tawte xëy aw mar leen xam ngeen luy waral loolu ñàkka taataan rek moo koy waral na ngeen fexe ba loolu bu leen dal wér na am na mag mu doon waxtaan ci tii si bàmmeel ak sëriñ Tuubaa xaadalawo law maxtaara lawo sëriñ bi ni ko xam gi nga xam ni maay sab sëriñ na la doy wér na am na bis sëriñ Tuubaa xaadalawo law maxtaara lawo woolu mag ñi ni ginnaaw tàkkusaan nañu tase ca buntu ba ba mu ñëwee ba nuyoo ni leen ñëw ngeen sëriñ Abdullahi Njaay xaasim radiyallahu ko ñëw ni ko ñëw nañu balay booba sëriñ bi daal def tell bunt ba delluwaat ca biir kenn waxul bi mu génnaatee ni su boobaa du yàgg du të xam naa fa ma jëm xam fa ma leen jëme baye boo ngeen dellu wér na lool sëriñ Tuubaa xaadaloo la muxtaar mas naa xellil attaaya sëriñ saalihu loo ak sëriñ baara jenn radiallahu taala anhu bu ñu téye kaase mu dellu fabaat kaase wàcce ko wàññi ko wàcce ko ni leen ataamuroona birri watan saw na anfusahum joxaat leen ko ni leen attaya ji wàllu yu gën a màgg amul maqaamam ci benn gux sëriñ moo xabsaloo mas jox doomam sëriñ saalihu loo radiallahu taala anhu ab kaamil yëtal ma ko sëñ Tuubaa xaadaloo la maxtaaloo fekk am na bataaxal bu nekk ca biir bi mu ko joxee sëriñ bi mu fopp ko taf ko ci ab dënnam ab diir bu yàgg ubbi ko génn kayit woowee jàng ko ni ko saalihu mu ni ko mbàkke sëriñ bi ni ko sa baay moor xam sa kat fere yi tawat ci bataaxal bii ngir nu mu bëgg ñu mel ni te meluñu ni soo demee nee ko ànd ndooyi da am ñu dul àgg ànd ndooyi da cee am ñu dul àgg soo demee nee ko yomal xiyaam ku la gisul du la jël wér na lool loolu ba ne nettali muy nettali ñetti téeméer ak juróom fukk ak juróom ñett am na bis maam Cheikh Ibra Fall radiyallahu taala anhu wéradi Sëriñ Tuubaa xaadalaw la maxtar loxo yabal ay ndaw ni leen dem leen ceetal ma Ibra Fall ba ñu génnee sëriñ bi woowaat leen ni leen dama bëgg dama bëgg ngeen seere jëm jooji ngeen jëm la dale ca kawari bopp ya ba ca wey tànkam ya lu ca metti liggéeyal maa tax wér na lool sëriñ tuuba xaada loo la mas naa wax kooku yorub deram dem ba ca bërëbub jullikaay mu lal ko fa julli rakkaa ya ko soob ju jëlëb ab deram kawar googee wadd ca der ba ndax boroom der ba dana ko fa di ko taqalaat ca der ba ñu ko déedéet mbàkke mu kawar googee wadd waddu googee mu wadd xam ngeen lu ko waral ñu ne ko yaakaar nañu ni ñàkk a dëgër moo ko waral Sëriñ Tuubaa xaadalaw la maxtaaloo ni kon mooy leen bu baax a baax ba bu ñu yële bee der bi du ngeen wadd taan woo wér na ñooy ci nettali ñetti téeméer bi ak juróom benn fukk Sëriñ Tuubaa xaadalaw la maxtaaloo nee na jamono ngi ñëw joo xam ni bon ngay ñëw nday ju sababu ko baay bu sababu ko nammeelug buur bi la wér na nee na jamono ngi ñëw joo xam ni bon ngay xew ndey sababu ko baay bu sababu ko nammeelug buur bi la wér na sëriñ tuubaa xaada lahoo maxtaara lahoo nee na jamono ngi ñëw joo xam ni góor ñi dañuy gunge ànd ak tubaab yu góor yi jëm sawara jigéen ñi dañuy gunge tubaab yu jigéen yi jëm sawara nee na jamono ngi ñëw joo xam ni góor ñi dañuy gunge tubaab yu góor yi jëm sawara jigéen ñi dañuy gunge tubaab yu jigéen yi jëm sawara wér na lool gunge mooy ànd ak ñoom am na bis sëriñ Tuubaa xaadaloo la maxtaaloo di wax ba mu yàgg sëriñ Xablaay Njaay xaasim radeer taan xanu jig nu ko bu dul kon ak yow gola gàddu ab geenam xëy na mu diw lépp waaye ni mu taxawee fii damay nuru bu dul kon ak yow ñépp dem fa ñu jóge woon sëriñ mi ni ko ndeem dana ko am ndéem dana ko am li sëriñ bi li mu wax damay nuru ndéem danga gis fooy dellu su ko defee war nañoo xam ni sëriñ Tuubaa xaadaloo la maxtaarloo day xam jublu waxkat yépp moo tax li muy tontu kii muy waxal mooy xam dëgg-dëggam walaw alam am na koo xam ni daa yàgg ci kër sëriñ Tuubaa xaadaloo la maxtaarloo lool te seexul mu ciy wax sëriñ bi bis mu ni ko man bala ma fob mbooloo di ko tofal tofal nit sempi ab géttam ci sawara ba noppi door caa def leneen lu ma koy defal wér am na bis ñu defaral sëriñ tuuba xaada lawo law maxtaar lawo am néeg ci njaareem ci ak mujjam ci saahir ngelaw lu metti daaneel ko ñu koy jàmbat sëriñ bi ni leen israfil alayhi salaamu la bu ngeen xamoon li mu nar du ngeen tawat néeg bu daanu wér na xëy na daayor ngelaw li moom israfil wallahu alam sëriñ abdu kan xuru mbàkke radiallahu taala anhu nee na sëriñ tuuba xaadalahoo law maxtaar lahoo bi muy ñëw jamono ñaari buntu la gis mu leer ñuy ñaari balla sëriñ balla ñokket radiallahu taala anhu ak sëriñ balla aysa radiallahu taala anhu kee mi ngi dëkkee njaambur kii bawal bi mu gisee sëriñ Balla ñokket luko ko def mu fayu sëriñ Balla Aysa lu ko def mu muñ mu jaare ci buntu sëriñ Balla Aysa waaye sëriñ bala ñokket bu dul woon fayantoo falay jaare wallahu alam lu mel ni mën naa doon xam-xam yoo xam ni nit yàlla yi ñoo koy xam di ko wax mën naa muy loo xam ni sëriñ Abdou Kane radiyallahu anhu moo ko dégg ci sëriñ bi waaye lu man di am sëriñ bi moom leer na ci ay waxam yu bari lu ñuy tegtal ni tànn na fi mu war a jaare door a ñëw wallahu aalam am na bis oma nang woolu sëriñ Tuubaa xaadaloo law maxtaar loo mu ñëw bu mu mu ni ko maa woo sëriñ Tuubaa xaadaloo law maxtaar loo ni cell mu ni ko maa woo sëriñ bi ni cell mu ni ko Ibra Faal day def buy noppalu ci waxtu noppaloom mu koy yàqal ngir ci kari aaye ko wala ma delloo la ci géej gi sëriñ bi ñu bëri ko mu doo dugg ca néeg ba ubbuntu ba sëriñ bi wax ka fa nekk dikk dellu ca wax ja ba mu la gisaatul woo ni ko ñemewu koo fëgg sëriñ bi dani ko woo ko mu delluwaat ca wax ja ba mu la gisaatut kooko ni ko ñemewu koo fëgg sëriñ Tuubaa xaadalaw law ni maxtaar loxo ni ko na ci dellu bu ci dellu woon nit ku weex jeex ci suuf tey la ko doon liggéeyal ci seen biir yegg na bu ci dellu woon nit ku weex jeex ci suuf tey diggante boobu yi daa am wax ju fi dox te leerul moo tax binduma ko walaaw alam ñu ñëw ci nettalem ñetti téeméer bi ak juróom benn fukk ak ñaar sëriñ Muusaa Ka radiyallahu taala daana yut sëriñ tuuba maxtaaral xaada lawo law maxtaara lawo ay taalif mu daa ko xëcc ngir nattu ko am na bis mu digtal ko sëriñ bi ba noppi mu xëcc ko taf ko ci dëndam ni ko naxam muusa dees na la dimbale waaye jaloore ginnaaw boroom bu boobaa na nga ko def wolof ndax day am bu ëllëgee ñuy ñëw bëgg maa xam bu boobaa fu samaw tur àgg sëwtur tur na fa yegg siiw na Sëriñ Tuubaa xaada lahoo lahu maxtaa lahoo bu daa jàngale da daan wax ni nañu ma wool sama ñaari ma sàmma yi ma sàmma mbàkke ma sàmma kanni bu sa radiallahu taala anhuma sëriñ ma sàmma kanni waneen waxtaan la muy nettalit ñetti téeméer bi ak juróom benn fukk bu Sëriñ Tuubaa xaada lahoo lahu maxtaar lahoo daan jàngale di boof di yéemu ba am bis am ci mag ñi ku ñu wax ni ko bu sëriñ bi di wax dangay noppi mu ni leen xanaa ma jéem ko am bis sëriñ bi di wax mu ni cell sëriñ bi xanaa ma sàmm kandi dafee nekkul mu ni axakay ni bërët mag xam ni li muy def neex sëriñ bi siiw na sëriñ Tuuba xaadaloo la maxtaaloo mas naa woolu sëriñ ma sàmm kandi ak sëriñ afeetu ñang ak serigne mohammadu job ma samba radiyallahu ta'ala anhum ni len sa borom dama digal mu yobbu len fo xamni yak yeggu fa ma bëggoon ngeen dimbali ma ci bàyyi aduna te jox ma seen bopp bu wér bañ cee bàyyi dara sëriñ ma kan kanni radee ta'ala xam ni ko jox nañu la sunu bopp bu wér jaay nañ la ko joxaat la njëgge hadiya te sun bëggoon a xàcc bu nangu bàyyi aduna nag dañu di ay nit soxla nañu ci ndimbal Serigne Touba xaadaloo loo maxtaaloon ñu xàkkasaa nii laa bëggee woon bi nettali day gën a leeral ba ca jataayu texe mel na ni waaye benn la walaw alam mas naa am ñu Serigne Touba xaadaloo la maxtaaloo wax ni min ashaabil janna bokku leen ci waa àjjana ba muy ñetti waan ñu ni cel mu ni leen xooloo kunnaahu wax leen nekk nañu ko ñu ni kunnaahu sëriñ Masamba Kanni bu sa radiyallahu loolu da def ab jël mu yendoo ko mu yendoo kunnaahu kunnaahu kunnaahu siiw na sëriñ Tuubaa xaadalawoo law maxtaaralawoo mas naa woo sëriñ Moor Gay làmbar mu dikk fekk ak ganaar fi kanam ak paaka ni ko Moor Faal jëlal ngànnaay loo te lewatal ma ganaar goo gii mu fab ko dox ñetti jéego sëriñ bi ko moor dellu sil bu leen defati dara te fasu leen ci dara soo demee na nga fas ci ginaar goo gii ni saa boroom yow mi nga xam ni yaa bind lépp moom lépp lor joo xam ni bind nga ko jëme si ko fi nun nanga nu ko dimbale felanunu ko mu dem ca noon ya ñeneen loo xam ni bind nga ko te nu tax defal nu ci lala soob wér na lool yooyu ci nettali ñetti téeméer bi ak juróom ñaar fukk ak ñett am na ku mas ñëw ci Serigne Touba xaadaloo la maxtaaloo di ko diis ndimbal te tallu ci digg dooleem Serigne Touba xaadaloo la maxtaaloo ni ko bindal ma yëngu mu bind ko mu bindal ma yokk mu bind ko mu ko bindal ma jekki mu bind ko mu ko bindal ma ñàkk mu bind ko sëriñ bi ni ko jàng ko mu jàng ko ni yëngu yokk jekki ñàkk sëriñ bi ni ko waxaat ko mu waxaat ko sëriñ bi ni ko gis nga ko lenn lu ci nekk kat muyul borom bi loo ci def rek maanaam am la ca des boo yëngoo yokk waaye boo jekkee it na sëriñ Tuubaa xaadaloo mas naa teg loxoom yu ca kaw sëriñ Muhammadul Mustafa ak sëriñ Fadilu leen jaamu ji yàlla bu ngeen jaamul yàlla li ngeen fi gis muy nuru dara def ko ci ginnaawu pël mu dem ak moom safuma pël xeetu nit la jaamu ji leen yàlla li ngeen fi gis muy nuru dara def ko ci ginnaawu pël mu dem ak moom safuma mu ni sëriñ bi baat boobu mu wax am na noonu nu ko waxoon ni ko bindee daal di moo tax ma bàyyi ko noonu maam dani nangam la wax waaye ma bind ginnaaw waaye benn la wala alam sëriñ Tuubaa la wallaahu maxtaar la nee na keroog ñu tàggoo fu ngeen nekk lu mel ni sàkketu weñ mooy dox sama digg gi yéen loolu nag saa su doxee ci diggante njàccaar mooy koy gis ak gumba njàccaar li moom saa su ne mi ngi gis gumba gi waaye gumba gi du gis njàccaar li benn yoon lu mel noonu mooy dox suñu diggante saa su ne maa ngi leen di gis fu ngeen man ñaar ñett nee naa leen wax leen fa lu waxu te mooy waxu juyu def fa lu defu wér na maam Cerno ak sëriñ Moor Absa Lo radiallahu taala anhuma yoon wi ñu mujj siyaare sëriñ Tuuba xaadalawoo la moxtaar loo sëriñ bi dani ibra jiitul mamar topp ci yow wér na bi ñu génnee ñoom ñaar la ko maam Cerno radiallahu taala anhu laaj lu mu jublu ci wax ji Sëriñ Mor Habsa radiallahu taala anhu ni ko alxamis ngay génn adduna alxamis lay génn adduna waaye lu gàtt gàtt yaa may njëkk a génn adduna wallahu alam Sëriñ Tuubaa xaadaloo laaw maxtaarloo mas naa wax Sëriñ Saalihu Lo radiallahu taala demal woon ma kale radiallahu anhu bu mu ñëwaatee waneen yoon am na sàkket wu dox diggam ak sëriñ tuuba xaadalahoo la maxtaar lahoo dégg na sëriñ bi di wax ak ku xumbu baat ñu mel ni ñuy xaxante mu naa ko li lii bëgg xew dara jarul fekke ko ndax lii moos jigéen juru ko te pexam seetaane ëpp na ko wala jigéen jaru ko te pexam seetaane ëpp na ko wala jigéen juru ko nameelug borom bi la wér na lool am na wax yoo xam ni lii tax muy jafee xam daa jëmul ci nun waaye li mu nam mu jëm ci nun danu koy xam bu wér walla alam Sëriñ Tuubaa xaadalaw law maxtaaloo nee na koo xam ni bu julli woon ci ëkk ëkk ci manding manding mooy àll moo xam ni daa dox ba yoor yor nekk ci am xelam mu fàkk julli fa bu bi penc baa noonu lay taxawe di la wax man mii nga julli woon fi man war nga foo am fukki at ak lu teg bàyyi fa seede soo xam ni ku fa ñëw xam ni lii yaa ko fi bàyyi wér na wax ji ci jumaa yi njëreem la jëm waaye jëm na ci képp ku yàlla may man-man ci tabax néegub yàlla subhaanahu wa taala walaw alam am na naar bu sëriñ tuuba xaadalawu law maxtaarloo masa wax ci maam ceerno radiyallahu taala anhu kooku lu nekk ci moom bula neexee maa ko ci def bu la naqaree maa ko ci def mi ngi mel ni sa satala gii fekkoon mu yor ay satala lu ci nekk ku mu neex yaa ko ci def ku mu neexul yaa ko ci def nettali boobu moom it siiw na sëriñ Tuubaa xaadaloo law maxtaar lawoo daa fonkoon sëriñ aafiyatu lool radiallahu taanu daana ko woolu lu bari nga xam ni bu yónnee kenn bala moo ñëw mu yónniwaat kaneen ba mujj mu ni nañu ko wutal kër ci sama wet ndax li ma koy soxla daa bari bi mu ñëwee sëriñ bi ni ko kaay nu jaamu yàlla te bañ a soxla adduna siiw na sëriñ Xaafiya Mbàkke moom sëriñ Maamoor Anta Sali sëriñ Tuubaa xaadaloo la maxtaaloo saa su masaane digle ñu wàcc ab kaamil day ñëw fi ñuy jànge laaj sëriñ Xaafiya ab jukki ata ataamuroona naasa bil birri watan sawna anfusakum loolu mi firi mooy ndax da ngeen di digle aw yiw ba noppi fàtte seen bopp xañ na loolee tax bu masaa digle ñu jàng moom mu ñëw jël ab jukki nettali boobu siw na sëriñ tuuba xaadala wala maxtaaloo nee na bis sëriñ xaafiya radiallahu taanu fii fi njëreem maanak ak yow képp ñoo fi yóbbu seen bopp àjjana keneen ku fa dugg dañu la fa yóbbu siw na kon ñu ñëw ci ñetti téeméer bi ak juróom ñett fukk ak ñett sëriñ aafiyatu radiallahu taala anhu daana liqaamal sëriñ tuubaa lu bari xaadaloo law maxtaarloo léeg-léeg sëriñ bi yeex a julli si mu julli moom am na bis boo xam ni sëriñ tuubaa xaadaloo law maxtaarloo daa yeex a julli si fajar ba sëriñ aafiyatu radiallahu taala julli sëriñ bi door a ñëw bu ñu bi mu ñëwee daal li waral ma yeex a ñëw dañu ma doon xamal ni xasida yi jiitu géej gi nangu nañ ko ni nangoo yuy géej gi doon ko yóbbu xaras sama borom ni ma na ko teewe xiw na sëriñ tuuba xaada lawoo laaw maxtaar lawoo daana wax bu ma leen làqoo sama digg ak sëriñ aafiyatu bu fi lu toll ni ab bant dox kii nettali lu toll ni lañ seet la wax waaye xam naa ni sëriñ bi daawul jëfandikoo baat boobu moo tax ma xam ni lu tuuti la bëgg a wax walaaw alam naka noonu maam Ceerno radiyallaahu taala anhu waxoon na ci moom lu mel nii ndax lu mel nii sëriñ bi bu ko daan wax kenn la koy wax ku mu wóolu kooka itam léeg-léeg bu koy def da ci am ay jafe-jafe ba du ko man lu mu bëgg bu amul ci saaxin ñu koy gis itam dana am ci geneen anam walaw alam sëriñ Tuubaa xaadala walaw maxtaara loxo bi muy dóori ñëw njareem da daan def bu gudd jotee muy wër dëkk bi di tare alxuraan bi mu demee ba xat itam boo xëyee da ngay gis ay tànkam ci kees yépp nga xam ni moo fi doon wër ci guddi siiw na sëriñ Tuubaa xaadalawoo law maxtaarlawoo daana digal sëriñ Moodu Faal radiallahu taala anu muy jàng yaa mukrimat day fi jaaran kaana aw zaara yaa maahiyan an xadimin xablu aw saara ba xasida gi jeex daanañ ko digal mu jàng ko ginnaaw julli timis gu nekk ci weeru koor xëy na yaa xayre day fin àndi ca waaye loolu mooy waxi kiy nettali wala alam ñu ci nettali ñetti téeméer be juróom-ñett fukk ak juróom-ñaar Sëriñ Tuubaa xaada law maxtaara lahoo ci weeru koor daana wax ñuy yeexano du timis di wax yërëm leen mag ñi xëy na tàmbulik weer wi ngir mag ñi fi daan umsiyee wala alam Sëriñ Tuubaa xaada lahoo law maxtaara lahoo bu weeru koor daan bëgg a teru loo ko laaj dala koy jox ba noppi naa la xanaa danga koy waajale gan gi siiw na sëriñ Tuubaa xaadaloo la maxtaaloo mas naa wax sëriñ Omar Njaay dangura radiallahu taala anhu na moytu yent ngir yent na ngeen moytu tëraay bu tëdd bu bëri ba dem ci biir bàmmeel tëraay mooy tëdd rek na ngeen moytu tëdd bu bari ba dem ci biir bàmmeel Omar bàmmeel a ngi ñëw boo xam ni ku mu neex danga tëdd ku mu neexul da nga tëdd Omar na ngeen moytu nooflaay bu bari ba jéggi siraat Omar na ngeen moytu ndamu ba jot ci seeni téere Omar na ngeen moytandiku mbégte mu bari ba dem àjjana ndax mbégte àjjana la yam am na taalibe bu masa faatu ca njaareem Sëriñ Tuubaa xaadalahoo law maxtaar lahoo ni nañu ko yëgal fere yi bi mu dikkee wax ni ndax mbooloo mi ñëw nañu ñu ni ko ñi ëpp ñëw nañu mu waxaat ko ba mu ñetti yoon ñu wax ko loolu mu geesu sëriñ Mouhamadou Lamine Gaye radiallahu taala anhu gisu ko ci sàppe yi mu di ko xool di ko xool ba ca sàppe su mujj sa mu jàpp ci loxo loxoom wommat ko ni ko jiite ko sunu borom xamal ne ma koo jiite mu dem aljana siiw na sëriñ Mouhamadou Lamine Gaye ak sëriñ Baara Paate Mbooj radiallahu taala anhu bokkoon nañu ci ñu doon yanu gaali Serigne Touba xaada lahoo lahu maxtaar lahoo bi muy dem ndar bi tubaab bi defee seeni pexe ba wàcc leen Louga teewul ñoo jiitu Serigne bi ndar ba mu leen gisee dani leen ñëw ngeen ñu ne ko waaw Serigne bi ni leen xamoon naa ni da ngeen ñëw waaye laal ngeen doomu buur bi siiw na ki nettali puudar la wax waaye moom doom waaye mooy doom ndax fital yu njëkk ya maq doom lañu ko daan wax ci biir nettali bi ci ngay mën a déggee loolu ñuy wax ci ay nit yoo xam ni dañoo àndoon ak sëriñ bi ci tukk bi te nekkoon ci réew mi ba tey loolee sëriñ bi defoon ca wiir wiir ak sàmbalaw be mooy lii ba tey danañu xam ni sëriñ bi itam képp ku mu féetale dara ëpp naa soppi ndax lu mel nii bu ko keneen yoroon ku dul ñii mu des ginnaaw yal na leen yàlla fay te gërëm leen faaw wallahu alam ñu ñëw ci baneen ba tey muy ñetti téeméer rek juróom-ñeen fukk ak ñaar ndax yooyu yëpp daa bokk ci fu muy dellu sëriñ Mouhamadou Lamine Gaye radiallahu taala anhu mas nay si sëriñ Tuuba xaadalaw la fa ñetti fan bi mu nuyoo sëriñ bi ni ko jaar naa ca dëkk ba sëriñ bi joxaat ko loxo ni naka sama dëkk ba ñaata fan nga fa am mu ni ko ñetti fan sëriñ bi ni ko fa nga nekkoon ñaata at nga fa am mu ni ko ñetti at sëriñ bi ni ko fulal nañu la ko lu toll ni ñetti at ya nga jaamu woon foofa mu ni ko mbaa nañu ko nangu sëriñ bi ni ko nangu gi ñu ko nangu moo tax ñu fulal la ko nettali bi bari na ay waxiin waaye andi naa yépp walaaw alam yooyu ci nettali ñetti téeméer bi ak juróom-ñeent fukk ak ñett ndax yooyu yépp danoo bokk ci fu ñuy dellu muy sëriñ sëriñ Mouhamadul Amin Gaye sëriñ Mouhamadul Amin Gaye radiallahu taala bi muy sanc al minnatul oliya sëriñ Tuubaa xaadara moo ko ko digal ko digal naa nga war gëréem ba waxtu yoor fu ma la fekk nga sanc fa minnatul oliya dëkk la loolu yi jëfinu sëriñ bi la daana waxin ni taril alxuraan fu mu yeggere foofu la ci nettalim ñetti téeméer bi ak juróom ñeen fukk ak ñaar sëriñ Mouhamadou Lamine gay radiallahu taala xanu am naag sëriñ Tuubaa xaadir lawo law maxtaar lawo juróom ñaari at yoo xam ni moo koy noddal di ko liqaamal siiw na loolu mooy gàttal gi ñu ñëw ci nettali juróom ñetti téeméer bi ak juróom ñeen fukk ak juróom ba tey si sëriñ Mouhamadou Lamine Gaye sëriñ Mouhamadou Lamine Gaye radiallahu taala bi mu jébbuloo ci sëriñ Tuubaa xaadalawoo law maxtaarlowoo dani ko sa dikk gi baax na ci yoon wi lool mu ne ko mbakke maa ngi jéggulu sëriñ bi wax ko bayir wii fattallu xad yabdu amaamal wabli wal fadlu lil waabili laa li talli siiw na lool mooy gàttal gi bayir wi day xam le ni buy taw day njëkk a wicc wiccal door a taw taw bu am doole kon jiitu adduna taxul nga ëpp ngëneel ki mujj ñëw dañu bayit waaw ku ñuy wax alxariiru muy maqaamaatul xariir yi moo ko wax waaye sëriñ bi andi na ko ci ñaari masaalikul jinaan yëpp ngir misaal sëriñ Tuubaa xaadalawoo law maxtaaloo nee mbokk mën naa ñett ay mbokkam waaye mënu leen a ñett mbokk mën naa gën ay mbokkam waaye mënta génn ay mbokkam mbokk mën naa ëpple ay mbokkam waaye mënta ëpp ay mbokkam mbokk mën naa raw ay mbokkam waaye bu àndut ak ay mbokkam aw doxinam du rafet loolu mu njëkk a wax ni mbokk man naa njatt ay mbokkam waaye mënu leen a njatt ñaari waxin yooyu xam naa ci waxin wi la waaye ñaari yëpp yaakaar naa du njatt ci xamaat baat bu leer rek wala buñ ko xoolaatee bu baax danañ ko leeral incha allah muy nettali ñetti téeméer ak juróom ñeent fukk ak juróom benn waaye liñ ci tegaan moom noonu la ñëwee muy mën naa gën ay mbokkam waaye mënta génn ay mbokkam mbokk mën naa ëpple ay mbokkam waaye mënta ëpp ay mbokkam mbokk mën naa raw ay mbokkam waaye bo ënnut ak ay mbokkam aw doxinam du rafet Sëriñ Tuubaa xaadalawoo la maxtaalawoo nee na ñeenti sëriñ yi ñoo am ak ñeenti taalube yi gumba gumba njaacaar njaacaar njaacaar mooy ko gis ak gumba ako njaacaar ak njaacaar ako gumba ñeenti sëriñ yooyu ñoo am gumba gumba mooy sëriñ bi ànd ak taalube te ñoom ñaar kenn yàlla tax koo jug bu ñu dajee mën a gi ñuy maneeg déggoo gi dana tax kenn di jiitu moroomam dañuy lëngoo ñaari gumba bu ñu àndee di dox ba kàmbu galan leen muy nekk ci seen kañam nu ñuy def ñu ni ko dañuy daanu ñoom ñépp ca kàmbu ga mu ni waawaaw gumba mooy taalube bi yàlla tax a jug mu wutub sëriñ te sëriñ ba yàlla taxu koo jug bu ñu àndee ba kàmmu ga leen leen gumba ga day daanu ca kàmmu ga moom bu ñëwee teggi ko gumba njàccaar mooy ku yàlla taxut a jug mu gisee ku yàlla tax a jug bu ñëwee ba gis kàmmu gi day teggi jàlli moom ma jiitu ki topp ci ginnaawam moom bu ñëwee da cay daanu njàccaar mooy ku yàlla tax a jug seeti ku yàlla tax a jug ñoom itam li ma waxoon ca ñu njëkk ña mooy dellu siwaat ñoom ñaar déggoo gi ñu déggoo ak namante gi ñu namante dana tax bu ñu àndee kenn du jiitu sa dañuy lëngoo ñaari njàccaar bu ñu lëngoo di dox ba kàmbu gëlan leen nu ñuy def ñu ni ko dañuy tegg sëriñ Tuubaa xaadaloo la ni mooy ñeenti sëriñ yeeg ñeenti taalibe yi siiw na sëriñ Tuubaa xaadaloo la maxtaaroo daana wax bis bu rafet jar na xaar ren ba déwén ndax li ci mooy bari fi mu ne nee nañu weeru gàmm ku ci dal faw mu mokkal alxuraan insha allahu taala walaahu alam soxna Seyna bu Mbàkke radiallahu taala anha mas naa sol lu yees ci bisub talaat Sëriñ Tuubaa xaadalaw la maxtaaloo ni ko summi ko te saraxe ko siiw na ñu ñëw ci nettalim ñeenti téeméer bi Sëriñ Tuubaa xaadaloo la maxtaloo nee na sama xasida yi nee na xasida yi dana dem ba ci ay weñ lañu koy waxe bu këroogee dootul am njariñ day xam ne ni day wàññi barke bi naka noonu mool yi day wàññi barke mbind mi li ma bëgg a wax mooy jàng ci mbindum loxo moo ëpp bark li lay xamal dëgg dëgg waxe Sëriñ Tuubaa xaadaloo la maxtaloo ci loolu mooy ki tàmm jàngee ci ay rajo bu ko amul dootu jàng wala bu koy def du ko gënal kon mel na ni yàlla taxatul te jëf bu yàlla taxatul amatul njariñ wala alam ñu ñëw ci njàngalem Serigne Touba ci ñeenti téeméer bi ak benn Serigne Touba xaada lahoo lahu maxtaara lahoo mas naa laaj Serigne Mouhamadou Lamine Diop radiallahu taala anhu man jaa bil fa lahu ashru amsaliha nu ngeen koy firee mu ni ko ku jëf benn bu baax sunu borom subhanahu wa fay la fukk serigne touba xaadalewo law maxtaarlowo ni ko waxul man faxala ku def man jaa ala wax mu ni ko nun dembàkke loolu lanu jàppoon serigne touba xaadalewo law maxtaarlowo ni ko man jaa ku ko dikke benn bu baax mu xool ko ba mu doy ko ba mu nangu ko falahu xasru am saaliha mu fay la fukk siiw na lii day mel ni aaye bii moo ko firi inna la nudion ajra man ahsana amala man jaa mooy man ahsana amalan wallahu alam sëriñ malik baasin si ak sëriñ moor xari si radiallahu taala anhuma mas nañoo siyaar si sëriñ tuuba xaada lahoo lahoo maxtaar lahoo bay dem ba mu leen ñaanilee ba noppi ni leen dem leen ca Mouhamadou Gaye mu dénk leen ba ñëwee fa moom radiallahu taala an mu ni leen ndaw yu wattu alxuraan di ko jàng jàng diine di ko jëfe moolus leen ni war a dénk xanaa ngeen moytu bëgg adduna bari na gàllankoor yoo xam ni bëgg adduna rekk moo koy waral bi ñu ñëwaatee ci sëriñ bi ba wax ko ko mu ni leen gàtt na waaye am na solo ndax adduna lu yàqu ci biiram la yàqoo lu baax itam ci biiram la baaxe siiw na ñu ñëw ci jàngale mi ñeenti téeméer bi ak ñett Sëriñ Tuuba xaada la woon law maxtaar la woon nee na Ibra Faal bàyyi na boppam bàyyi na ay mbokkam bàyyi boroomam ngir man waaye defaral naa ko boppam marale marale koog boroomam marale mooy jubale boole naa koog ñoo xam ni bu ñu gënuli mbokkam it ñoo gën ci moom ay mbokkam siiw na Sëriñ Tuuba xaada la woon law maxtaar la woon bi muy tollu jeewal am na soxna su ko duyaloon ak satalaam mu laaj ko noo tudd mu ni ko ba sëriñ bi ni ko tuddoo noonu jéem ba nga tudd daa am lu ma sama boroom di jàngal ci sa tur wi damay xamal ni ñii lu ñu jéem jéemit dañuy mujj ba siiw na ñoo ci nettali ñeenti téeméer bi ak juróom sëriñ Tuubaa xaadaloo la maxtaaloo mas naa ñëw xuru mbàkke bay dellu ni Baabakar bërëb baa ngoogu ana Muxtaar Njaay Saaxo mu ñëw mu ni ko maa ngi nii sëriñ bi ni ko ana Xabibulaahi fu ñu ko denc mu joxañ ko ci penku wi sëriñ bi ni ko déedéet nekkul foofu daal wëlbatiku ci wetuk ci wet gi féeteeg Saalum ni ko Xabibulaahi radiyallaahu taala anhu ci wàll gii lañu ko denc su ma demee danaa fi yebal Balla Faal xellare radiyallaahu taala moo ko fi dencoon moom dana xam fu mu nekk wér na sëriñ Tuubaa xaadaloo la maxtaaloo mas naa wax sëriñ Mbay Jaxate radiyallaahu taala anhu Habibu moomee kat mag ñi daanañu wax ni bu dundoon kenn duma xam fekk na sëriñ Mbàkke Juuf nekk fa mel ni ko tàggoog sagoom ni ko mag ñi lañu daan wax amul sëriñ Tuubaa xaadaloo la maxtaloo ni ko yow dangaa àndul ak sa sago daa di ree ni ko Habib moomu kat fu ma masa nekk ci àdduna fekk nama fa di ma laaj wéttal bi ma nee ca sax fu ma mata nekk fekk na ma fa di ma laaj wettal waaye bëgg démb damaa ñax te mooy tudd nga neelam ci keneen moo tax ma yafal wax bi moom mii kat bëkk démb dani ma nii nga ma mujjee ginnaaw bàyyi ma ma weete nii su ma mujjul woon ginnaaw noonu duma la bàyyi nga weete nii na nga dem dana la fa fekk mooy Serigne Bay Jaxate lay waxal ba tey ni ko nanga dem danaa la fa fekk nanga ma fa wutal kër sëriñ Mbay Jaxate radiallahu taala anhu max naa siyaati sëriñ Tuubaa xaadaloo la maxtaloo mu ni ko gan gaafa yabaloon ma nga mu ni ko waaw fekk na Cheikh Ibra Faal radiallahu taala anhu la ci jublu sëriñ mu ni ko jugub ja nga ma joxoona nga fa mu ni ko waaw dañu ko boo demee jaayal ma ko ko bi mu ñëwee wax ko Cheikh Ibra mu ni ko nu mu toll mu ni ko sàqum fukk la mu ni ko bu ñu ko masaa bojj nu muy toll mu ni ko téeméeri saaku mu ni ko téeméeri saaku lu muy war a jar mu ni ko ak junni muy bërigo bu nekk fukk maam Cheikh dugg ca biir këram di génne loola am ci ay waa këram ñu ni ko juróomi téeméer doy na ci mu jox ko juróomi téeméer sëriñ mbay radiallahu taala anhu bi ko indilee sëriñ tubaa xaadale loo maxtaaloo da koo laaj nu mu toll mu ni ko juróomi téeméer sëriñ bi ni Ibra Faal moo njëkk a jox junni bi sëriñ mbay jaxate radiallahu taala anhu ñëwaatee wuti maam Cheikh Ibra taala anhu mu ni ko anas sëñ Bamba mu ni ko ma fa mu ni ko lu mu wax mu ni ko neena na ko njëkk a jox junni maam Cheikh radiallahu taala anhu ca kër ga ba mu yàgg mu génn jox ko ab ñi doon bañ ma joxe ab junni kon ma joxe junni ak juróomi sëriñ Mbay radiallahu taala anhu fa baat ko yët sëriñ Tuubaa xaada lahoo laahu maxtaara lahoo sëriñ mbay jaxate radiallahu taala anhu mas naa am taalubeem bu faatu mu wax ko sëriñ tuuba xaada lahoo laahu maxtaara lahoo ni ko la woon gërëm naa ko sëriñ bi ko tibbal suuf jox ma mu tibb suuf jox ko sëriñ bi di bind di ñaan di ci tifli ba mu yàgg mu niko ko boo demee nañu ko sotti ca bàmmeel ba tëral ko ci kaw suuf si suuf see koy booleeg la bëgg di ko tàggaleeg la mu ragal mu jug di sant Sëriñ Tuubaa xaadalawoo la maxtaaloo ni ko fu ñu koy denc mu ni ko xuru mbàkke sëriñ bi ni ko delsil sottil suusu xuru mbàkke suuf yépp te xel nañu ko malaaka yi mbugal xamuñu ko weer na ñoo ci nettali ñeent téeméer bi ak juróom ñeent foofu la nettali yam soxna Faati Balla radiyallaahu anha mas naa siyaar si Sëriñ Tuubaa xaadaloo la maxtaar loo ni ko dama gént gént gu bëgg a nettali sëriñ bi ni ko lu mu doon mu ni ko dama gént nga jox ma ay xéewal ay gone wër ma ma di leen ko séddale sëriñ bi waxul dara ca ngoonu bis bii mu faatu sëriñ bi wax ni sama gone ya ca xuru mbàkke la gis nañu ko fa yóbbu wér na yàlla nañu yàlla may mujj ko rafet ci barkeb sëriñ Tuubaa xaadalaw law maxtaara lawo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 dafa yomb doomu aadama ndax ak matériel waaye képp ku ci dégg baatub olaf boo xam ni yàgg naa xam ni baat bi nii leen koy waxee amutug soppiku moo xam ni noonu la ko suñ alaaji mbàkke binde ñu xam ni ñoo juum ca waxin woowu ñi ngi ñaanal képp ku ci dégg dara yàlla nag sunu borom defal tawféex defal ko ngërëmul sëñ bi wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu